Euh, du pouvoir ñu ne mee ko suñu ay euh, dirigeant rawatina ko suñu ay euh, président gis nga Blaise Compaoré lu ko jëlee foofule ba mu exilé mm. dem Côte d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara aussi la même chose mm. kii di président Macky Sall aussi ñu ngi koy jiiñ na bëgg amal li nga xam ne mooy troisième mandat mm. mu mel ni comme ñun suñu président yi bu ñu accédé au pouvoir ils ont du mal à assumer leur responsabilité par rapport ak yi nga xam ne moom liggéey woon askan bi tey est-ce que jotul ñu xoolaat euh, démarche bi nga xam ne rek moom la ñuy defee suñu ay constitution yi ñu ba ba président bu ñëw rek ut sa benn tailleur bu lay dagg rek nu mu la ay arrangé waaw nan euh, dama jàpp ne euh, li dafa am lu jiitu loolu lépp mhm. parce que tamit ni yoon tëddee Sénégal tëddee ko fépp ci mhm. Afrique mooy président bi nga xam ne moom mooy falu constitution moo ko may mu mu mu mu impulsé wala mu wala mu wala mu wala mu commencé processus bi nga xam ne mooy modifier constitution bi. Mhm. parce que boo demee ci constitution bi dañ la le président peut euh, euh, modifier la constitution par référendum ou bien en passant par euh, l'Assemblée nationale. Mhm. disposition boobu boo xoolee tey dañ ko bokk ak réewu Afrique yu bëri. donc dama jàpp ne laata ñu yegg ci bindu constitution bi. Mhm. nañu nañu farlu ci ki nga xam ne moom la ñuy tànn jox ko sañ-sañ yooyu noonu. parce que buñ ci farluwul ci loolu rek lim ñuy jural. mooy li ñuy dund Sénégal Guinée dund ko waa naa dund ko waa Côte d'Ivoire nekk di ko dund moo tax ñun à Pastef ñuy wax ne dafa am ñaari dafa am solo mhm. mooy bu ñuy tànn nguur euh, bu ñuy tànn ab ab ab président nañu xool ndax moom li muy woote bi nga xam ne euh, nekk na candidat di dagaanu baatu askan bi est-ce que doxalin boobu la amoon maanaam bu président taxawee ne man démocrate la démocratie laa gëm est-ce que ba mu nekkee en position ànd ak président bi nga xam ne moo fi nekkoon est-ce que taxawaayam boobu est-ce que amoon na taxawaay boo xam ne maase naag li nga xam ne moom lay doxal. Mhm. donc dafa am benn responsabilité boo xam ne aussi askan bi def ko cee am. parce que une chose ce les élites politiques. Mhm. yàlla def ñu natt ñu am ay élites politiques yoo xam ne du ñu ay démocrate parce que seen ay parti du ñu ay parti démocratique mhm. choix yi nañ ko fay defee du ay choix yu démocratique yàlla natteew ñu loolu loolu nag bu ñu bëggee mu soppeeku il faut que askan bi mu jël ay responsabilités ca ba mu ko waree jël ñuy tànn ñu tànn koo xam ne ci yorinu parteem ci taxawaay bi mu am ci valeur yi muy défendre champ politique bi kat euh, mën ñu am yaakaar ne kii bu yéegee dina am doxalinu démocrate mais mhm. malheureusement foofu la askan bi di la jee des fois. Mhm. parce que li ñuy gis mooy nit ñi au lieu ñu accorder importance yooyu waaye li leen gën a yitteel mooy liñ leen di wax ci jouru campagne bi mais également li nga xam ne yaakaar nañ ko te muy jellu ci ñoom ci wàllu koom ak yu demee noonu loolu moo leen ëppal solo ki nga xam ne moo leen di mooy dagaanu seen baat. mooy kan fan la jaar lan la def man dama gëm ne sénégalais bu ñu saytu woon bu baax a baax ki nga xam ne mooy Macky Sall da nga xam ne ba muy voté en 2007 euh, voté wul ak carte d'électeur am euh, kooku yaakaar naa képp kuy xaar ci moom mu yéeg am taxawaayu démocrate yaa ngi nax sa bopp mhm. moo ñu juree nag li nga xam ne ñoo ngi koy dund ñuy ñaan yàlla euh, fii ay ay ay ay weer xelam dellu si mu bàyyi lépp loo xam ne dafa jëm ci da euh, wut troisième mandat. est-ce que jàpp nga ne événement yi xew euh, euh, Guinée war na mun a créer déclic si bopp kii di président Macky Sall si lii nga xam ne ñu ngi koy jiñ mu mun na dellu ginnaaw parce que coup d'état moom moo ñëpp xam ne ne day delloo ginnaaw ab réew rawatina ab askan. waaw ñun nag Macky Sall gëw loolu dina ko dina ko dina am effet bu mu def ci moom parce que lu mu ñu tàmmal moom tam maanaam nit la koo xam ne. Euh, li li jota li romb maanaam moom li muy liire ay situation euh, du ay lecture euh, progressiste parce que gis nañ li bi mois de mars li fi xew bi mu jàllee mhm. lan la ci tegaat mooy ay recrutement yu dul jeex mhm. ci ay xeetu ci gendarme ci police def na ay mouvement ci biir au commandement militaire bi ak yu demee noonu donc loolu lañ ci mën a jàngat rek mooy jàngat bi mu def ci événement yooyu du jàngatu démocrate du jàngatu koo xam ne Eh, jàmmay réew mi moom moo ko yitteel. Mhm. moo tax ñu jàpp ne tamit li nga xam ne xew na Guinée man gëm naa ne amul lenn loo xam ne dina ko wàññi ci pas-pas bi nga xam ne am na ko pour toog ci pouvoir bi donte dafay violer constitution bi. Mhm. loolu nag bu amee li ma wax léegi la responsabilité bi ça incombe au peuple parce que tamit le dernier mot en démocratie revient au peuple. li ñu doon wax rek bu ñu nee force reste à la loi ñu ne ko force reste au peuple. Mhm. donc te askanu Sénégal wane na ko jamonoy tubaab ba. bu ñu bëggee jël indépendance bi fi dëggal ñëwee def tournée boobu amoon na ci biir askan bi les porteurs des pancartes yu taxawoon ne ko nous voulons l' indépendance maintenant. Mhm. président Senghor également en mai 68 ay sénégalais taxaw nañ ne ko dañoo bëgg nga soppi doxalin. Mhm. président Abdou Diouf 93 mille président Abdoulaye Wade en 2011. Mhm. moo tax ñu jàpp ne moom Macky Sall war na xam ne ci suñu sociologie ci suñu histoire ab peuple bañkat lañu moo tax li nga xam ne yéenam la ci mu posé troisième candidature. war na xam ne bés bu ko defee askan bi dina taxaw jàmbaarloog moom. <laughs> Euh, suñu position suñu ay institution gis nga l'ONU euh, moom muy condamné fermement euh, di sàkku pour ñu libérer immédiatement kii di Alpha Condé la CEDEAO aussi exprimé aussi préoccupation par rapport ak avenir réew mi di Guinée l'UA aussi mu dem si même lancé boobule tey ji ñoom nga xam ne jamono ba Alassane Dramane Alpha Condé important euh, pour moi euh, nekkoon rek euh, di salfaañe constitution bu réew Guinée ñoom dafa amoon benn silence boo xam ne ñëpp dañoo jàppoon ne dañoo am complice ak complicité ak ki nga xam ne mooy président bi ñu dàq ba démb foofu la si Guinée tey jii est-ce que di ñoom dinañ am légitimité pour dire à ces militaires ñu dellu ginnaaw. mais ñooñu tey mënuñ ñu am benn benn légitimité parce que ñi ci jiitu mooy waa waa CEDEAO parce que mm-hmm. CEDEAO Euh, dafa am benn protocole bu boo xam ne euh, euh, adopté na ko mhm. mooy le protocole sur la démocratie la bon gouvernance et sur les élections mhm. moom maanaam CEDEAO am na tey base juridique boo xam ne mën na ko permettre mu mu mu contraindre chef d'État yi nga xam ne ñoo ngi passé outre les règles démocratiques parmi mhm. lesquelles alternance bokk na ci CEDEAO am na sañ-sañ jaare ko soit ci intervention militaire wala ay pression économique mm-hmm. pour pousser ñoo ñu ginnaaw mm-hmm. moo tax bi problème Guinée bi mu amee problème ba ñu ay nit ma waxoon jamono yooyu que ne la faillite électorale de la CEDEAO est la mère de toutes les crises en Afrique mm-hmm. parce que CEDEAO moom moo jëfewul sañ-sañ yi nga xam ne ñun suñu ñun peuple CEDEAO nañ ko ko jox ko ko ci wàllu sécurité ak ci wàllu élection donc ñooñu dama jàpp ne ce sont des médecins après la mort muy la CEDEAO muy l'ONU ak ku manti doon loolu nag da nga koy dugalaat rek ci la crise de représentativité globale mhm. muy CEDEAO du ONU la vérité mooy elles sont devenues des bureaucraties mhm. tey représenté tuñu peuple yi mhm. parce que li xew Guinée dafa am lu mu fësal li mu fësal mooy le peuple est d'accord avec ce qui s'est passé parce que tamit en démocratie la légitimité se mesure en fonction du nombre et surtout en fonction du degré d'adhésion du peuple par rapport aux initiatives qui ont été prises barki bi ñu xam ne wàcce nañu Alpha Condé militaires yi gis nañ ni leen askan bi ànd ak ñoom. Mhm. ànd ak aussi société civile bi mooy FNDC bi ñu dem libérer les prisonniers politiques ànd di célébrer li nga xam ne moom mooy coup d'état bi. mais est-ce que waruñoo def donc par rapport ak euh, scène de liesse yooyu nga xam ne euh, gis neen ko après euh, ba ñu dàqee kii nga xam ne mooy Alpha Condé parce que ñu bëgg ko. bañ ko zone Sahel baa ngi fi mbirum euh, euh, terrorisme mu ngi fi ainsi de suite même sax événement yi est-ce que yaakaaroo ne dina am ay njeexital par rapport ak sécurité zone Sahel bi aussi àjjuma. Euh, mais tout à fait parce que xam nga al au ci ci ci ci au fond. Mhm. en réalité problème bi posé wu c'est un problème de légitimité même de nos états. tout à fait. parce que état lii indi légitimité mooy mu mate ci lépp. Mhm. mu mate ci li tax ñu teg ko fi. Mhm. mooy mu mate ci wàllu njàng. mu wat mate ci wàllu dem ak dikk mu mate ci wàllu infrastructure mu mate ci wàllu paj mu mate ci wàllu xëy yooyu bu fekkee am na ci fenn foo xam ne état moom fay sooxe rek ñi nga xam ne ñoom peut-être gisuñu seen bopp wala boolewuñ leen ci ni ñu yore état boobu loolu la ñuy exploité ci seen discours mm-hmm. euh, gëmloo ko pàcc benn pàcc ci askan bi donte pàcc boobu dafay méngook ab waaso wala mu euh, cosaanoo ci ab gox ñu dooleel ñooñu ñu dal ci état bi loolu moom moo am li bu ñu ñëwee ci cadre Guinée à la base boo gisee tey euh, waa Guinée àndatuñoo ak Alpha Condé ci li nga xam ne loolu lay doxale mooy